dal leen ak jàmm mbokku internet yi football TV nuyu naa leen bu baax si leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo di leen wax ne lépp lu jëm si wàllum sport donc ba tey moo ngi disponible au 77 352 31 01 pour yéen ñi xamante ne bëgg ay ballon ay blouson ak ay maillot club wala maillot équipe nationale du Sénégal mbokk yi damay doore xibaar yi fële ci Italie bu ma demee Italie nekk damay wax Boulaye Dia mooy xibaar bi xamante ne tey lañ ko am tey la génne waa Milan AC dañoo bëgg kii di Boulaye Boulaye Dia nag gis ngeen ne dafa nekk di def performance yu baax du côté de naa foofu ci Italie Serie A boo xoolee vingt-huit match

Origi euh, Boulaye même si au au début xaw na ma jaaxal un peu parce que Origi du jouer ñu war créer benn benn duo ëllëg ñom ñaar à voir en tout cas Boulaye won na italien yi que euh, adapté wu c'est un championnat bu xamantene neex na lool c'est un championnat bu xamantene tactiquement il a progressé et que c'est un gars bu xamantene ne euh, lu numéro mel na coupe du monde dugal bi que ça soit première ak deuxième partie saison bi euh, dafa nek di confirmer euh li li mu woné won euh, wala bokk yaakaar bu ñu am ci mom ne mën na dugal bi euh, Milan nak ça peut être intéressant pour carrière parce que Villarreal waroon na nekk ben benn yoon pour dem accéder équipe yu magi mais bu fekkee benn Salernitana mën na ko jox possibilité mu dem Milan assez pourquoi pas mais la grande question est là moy est-ce que bo demee Milan di nga jouer xam nga donc Salernitana euh, tu vas jouer mais est ce que euh, moom mii di Boulaye Dia euh, y a des ni ma ko mën a wax ay West Ham ay Brentford Leeds mu ngi woon si dossier bi Southampton léegi moo jël ngaar moo ngi si woon des clubs anglais yu xamante ne ñoo ngi koy bàyyi xel et ku xam Boulaye Dia dafa yàgg wax ne championnat Angleterre Premier League championnat am la lu muy rêve la avant muy dem Villarreal amoon na choix dem foofu mais. Unai Emery moo ko un projet comme quoi ñëwal Villarreal et tout jouer Ligue des Champions lol moo mu dem fa mais euh, rêve bu Boulaye Dia mooy jouer fii di première ligue donc Milan AC tay mokay koy laaj ci ci euh, ci commentaire wax leen sen xaat ak sen gis-gis mbokk mo moo jógee foofu je vais parler de Dion Lopy mom nak moom nag euh, taskatu yu nek foofu si France ñoo ñuy xamal ne Everton se renseigne maanaam Everton moo ngi dem xam nga di renseigné ñëw di jéem a xool booy bi mooy kan parce que du Everton kese de moom ak Aston Villa la mais Everton nag ñoo ngi renseigné wu lu ñu mel nag euh, nañ ko euh, expliqué wu ak démbeeb sax maintenant temps il nañ loolu mais que dafa gën a confirmé mais gis nañu Everton génnagul si tolof tolof foofu ca Premier League muy équipe bu Idrissa Gana Gueye quant à euh, Aston moo ëpp stabilité actuellement à l'heure où donc euh, maintenant nak ban choix la si def pour man il est l'heure il est l'heure il est l'heure de partir xaw fa lay dem déwén mais il est l'heure pour dund bi de partir de changer d'air dem ci benn championnat bo xamante ne dina correspondre ak ay ay ay ay qualité de de box box de jouer offensivement eh, de montrer son côté son son côté euh, son côté offensif et surtout que vu que Sénégal dafa am benn RH bu xaw a am si milieu terrain bi à l'issue de convoquer les mêmes donc euh, pour pour dem pour dem changer hiérarchie boobu pour dem euh, xam nga donc euh, andi benn lëndëm si boppu Aliou Cissé war na nekk ngi fi pourquoi pas dem Premier League ça peut être hyper intéressant pour carrière je trouve mbokk yi ba tay rek damay jóge fofu ci Angleterre doxantuwaat Italie

donc euh, Napoli la nekkoon mu ñëw sel Juventus mais gars yi wa supporter yu Napoli dañ ko mere bu baax mais Kalidou Koulibaly ni mu mel fële Napoli ñu bëgg ko lool joxoon ka capitaine mu mu naan sax bu sama carrière bu mën naa fa dem dëkkaat est dina bëgg dem Juventus bii que Chelsea aussi tamit ak jën joueurs yu ñu jënd yu bëri ay bagages yi ay euh, ne laa ko mën a waxee Wesley Fofana euh, Boy Saloba muy fa y en a des défenseurs je sais pas nag moom ndax ak entraîneur bu bees dina bokk le même projet man pour man nag entraîneur mooy déterminé prochain entraîneur bu Chelsea mooy déterminé ndax day toog Chelsea ou pas en tout cas Kalidou Koulibaly sunu moom dafa bëgg a toog loolu moom xamale nag si benn interview bu xamante ne yàggul mbokk yi dama leen jóg benn information lii di euh, Pape Demba Diop di côté de Napoli ça fait euh, mu ngi commencé nag euh, brûlant laa wax wala mu ngi commencé chauffé lan moo tax ma wax loolu boo xool Zulte Waregem Pape Demba Diop fa la nekk nga xam donc équipe bi nag dafa wàccee deuxième division Belgique du coup est-ce que suñu jour bi da war a toog foofu deuxième division Belgique wala mi euh, Napoli bi nga mo ngi koy bàyyi xel pour jël ko na da war dem fofu donc là et la question yéen ci commentaire yi euh, wax leen ma lan le Pape Demba djop wara def ak prestation yi mu def ci si U20 yi gis nañ ko xam nga ay biom nek le meilleur buteur nek ben joueur bu xamantene fi ci rew mi en tout cas yaakaar nañ ci talent maintenant que équipe boobu wàcc nañ ndax déwén dafa war a dem toog jouer deuxième division ou dafa war a changer selon vous ci commentaire wax leen ma seen xalaat. mbokk yi ma jeexal xibaar yi bu xamante ne léegi nii laa ko jot euh, léegi nii euh, muy Ismaïla Sarr du côté de fële nii di Crystal place pour remplacer Wilfried Zaha bi xamante ne ku métti doon day dem donc loolu aussi tamit xibaar la bu xamante ne nii nii sànq laa ko jot euh, boobu soxla naa seen xaar en tout cas Ismaïla c'est dommage un bi waroon na de fekk ñu naan non day signé Manchester day signé City day signé Liverpool wala yu demee noonu Chelsea équipe bu mag maintenant bon qui ça à l'âge de 25 ans pourquoi pas toog que tu fa benn deux ans am beneen équipe bu en tout cas c'est c'est pas encore trop tard pour bien faire franchement donc euh, c'est pas encore trop tard pour dit di euh, suñu gaynde bi Ismaël Sarr doomu ndar boobu am nañ ci mom yaakaar ren jii gis na moom yi planté ay buts yu bari xam donc propre saison yi passé blessure yi bëri na bëriwul ren jii la tane je pense donc euh, équipe sa place équipe bu am stabilité la jax nañ c'est vrai que jaaxal nañ Vera et que Vera dafa defoon priorité mais je pense que c'est les dirigeants ñoo soxla ki di euh suñu gaynde bi di Ismaël Sarr bokki li mo moo nekkoon xibaar yi mo bëggoon partager ak yéen ci commentaire wax leen ma seen xalaat ak seen gis gis ba jaajëfal leen wax leen ba beneen su seen